cosaan ko fii mooy dañuy ñëw fii dëkk suñu yaay parce que Cheikh Tambédou taranga bu mu am mu indi ko bàyyul kenn taranga bu mu am mu indi ko bokk ak ñoom bàyyul kenn bàyyul kenn bu ñuy ñëw fii lu ne moyen bu nekk la ñuy jox du ñu manqué dara. dëkk yaam yaam fii la juddoo fii la juddoo fii la xam moom it bu mu demee ba mu am dara fii la xalaat ak ñu ko wër képp ku nga xam ne day lekk balanta ku nekk yaa ngi lekk si taranga bi waaw lu mu mën a def mi ngi koy def ngir yàlla si yàlla nag lu dul yàlla dam bokku waaw ngir yàlla. dara manqué wu fi dara ma ne dara manqué wu fi élimaan yi oustaz ñëpp ñu nga xam ni ay kilifa lañ ku nekk defal nga ko ay mbuus am na yeneen mbuus yu des fale sax pour ñeneen ñuy ñibbi ñu defal la yàpp bi dafa des dama ko wàññi nag bu mu programme man sama maa leen ne ñu wàññi ko day ëpp man maa leen ne ñu wàññi dafay ëpp parce que duñ ko ñoo mën a yëngal waaw. Sumba binduwa afle mo ba baba kimboe e alhamdulillahi rabbil alamin mo duwama ban sak bendang ma ma bendang ma de timba beng ma de tinambu ko la bombogi be ni wilu wa ba ak lem bendang be age kpa bo agijati mbage ke kpabo kibo ya bamba bamba deti ba biduwati nan duwa ma wabo alhamdulillah sango bama sema so bama diyo bar wabo alhamdulillah ba hudulu wabo madda taki wino wini dorong se wino na gadin bo janna nyawo ngbo golla golla be ga ngidi titasak san numu gede lan nan ma, wa ba agide lan nan di mbage age ga gibo bo gontan bo gontan njalma glomba maringu glomba maringu njalma bindang maduati ni am dana alamang ngat ba dange amma am dana ngat tigi foda ndana mm. mm. ngat foda ala ba wo kimbo we ani fo glog ringe Mm. ngonti wini wewe baba ba kakade o o tiale binyang nyang bideme be kpambin te ni babinte te banan banan lotte bo te ba duwan te banan wande bar wawa ala ala hala ma ga dunia duniya mo ndi batto wa rengin hando ba wa wo we bakade kari lo si fo se o ma bakane ganne lomba ma bindang ma bigi ma gini ala bigi mbo mowe ani be kak sok tida bega kari problem bolo be kontan bindi watu channi be man kontan baba kpa hotu kontan ne ba yof peng bal konton na te mutida jatat kosi abari mala manyo le munteti sidi mane se bari mala manyo olon teti sidi mane alaka mo pormero ntelle mu alaka mo folote sichor utumo kosi mo ma kalamita sa sanji sanji saba nka wili janne je na muruna ana ta fonye ko atel ngal jal na na ka modol bari fo esko daira tal budun ka abijere mputata na ta kaito dina ngadi na daira kewal butata ngan dante en koy ko gamo amanke mo kilinta se ko ala ta daira la bari bira futata daira kono ko sun sunkol ya lon ko tonya mulk ɲin nyinyini ya je ya fele lota kunta anata tembe a wulula labanw fe ala jallon a wulula labanw ntata la sanwo to bira nata a ko a sita mun ko prépare nka ye bari mañol be mun ko la a ko n fana mbina ala le a munta wolu yatina se a ye jallon ala ta jallona bari ala ma lañina ala a wulula laban wolu ala lañininta la a na bari mañol ye ñol lo a o ketan buli sewo fawlete ha finalement kabri jine fo sénégal jan mbe ba sewo kono ha mbe duwala simani jata keryala ala haaliti feere on ala dimbaye alma aye ɗum e to ha ala famille o famille o ay famille aya korosele dal na famille o aya hani anim futu sitol ɓe mulu nimma fa nimma kili portable o toon niyom kala ha ntelo tiiɗa jata ha merci <laughs> mbal konton ko ntelbe ɓe damina bi fo sewode ha ntel be damin na fo sewo ni sewo wol be ntel bulu na alfale mun duwana kuno alhamdulillah sa biyo abe damin na duwal ni kumun nsafo na lo duwal jabital nunna mbadi on nama funti nyoka mbaka o nyam bar sawo kay mbe damin na alhamdulillah mfuntita nyoka ne kenoto abe dawo da doron a hakkilo ko kuma se bulala janne sebe dawo da doro ko ku mun babuli janna ba kala kare ka batinga samba mba ma wulu sate to wala mun ko siti anda man na na je duwa kuma sai da wala kana na duwa barbiya bedamina damina alhamdulillahi rabbil alamin be damina fere sai duniya ka ben ngana nga duwan nu nyoye ntel dandula tara se ko sita ala jo sotonola ha ala jo mu duwaleti nsikara duwa se almanna akela nya mate ha kairo mu aka sabana ka natina alma kairo jiri la duniya be kan tu ha almanna jiri la duniya be kan ala ni wulula la duwa hormoto waaw koy a'udhu billahi minash asheytaani rajim bisimillahi rahmanir rahim ginaaw biñu sante yalla julli seenat bi sallallahu alayhi wasallam sant gërëm suñu ñaari wajur sant suñu sëriñ xalifa Babacar si Mansour di Konya ñaanal yalla gudd fan ak wër di ñaanal sunu muhaddam Cheikh Ahmad Tidiane tambedou mom mi nga xamanteni tay xeyna mo waral ñu taxaw fi tay di wax ñu ngi koy ñaanal yalla mom tamit gudd fan ak wër ak xewal bu yaatu ndax euh, financement bi mi def ni xewal bu yaatu rek moko mën man mi di wax ak yeen nak man may malik Diagne nek missionnaire Cheikh Ahmad Tidiane tambedou fi ci pon ci Balanta Kunda. si wàllu diine ji. waaw mission bi nag depuis ñu ko tàmbee liggéeyal tàmbalee liggéey ak maître Tambédou ba léegi wax dëgg yàlla ñu ñëkk fi taxawal si wàll boobu di man la ak Ansoumana Mané ak oustaz Dianfo wax dëgg yàlla depuis ñu commencé si kii ba léegi nañ si yokkute yokkute biñ ko gis nag dañ koy commencé suñu bopp biñ ko commencé suñu bopp ñun yokkute ñu si am soo gaa di ñëw si dëkk bi nga xamante ni tey fii la ñu taxaw di wax di kosi ku nekk képp ku dëkk kosi rek boo ko laajee tey war na dina xam ni yokkute bu mag a mag gis na ko si te jàngat bi ma si am si yokkute boobu sax mooy da fekk ni ba dor door di commencé ñëw fii première fois ñuy taxawal xadaratul jumaa te maître Cheikh Tidiane Tambadou ñëw fi kaddu bi mu njëkk wax kaddu boobu la gis tey mi ngi du ngi dox leen kat dëkk bi incha allah rabi dina jëm kanam te tànk fu muy bare fu nekk rek yokkute ngeen fee gis yàlla def na jamono yooyu bu oto daan ñëw bu indi wuloo kaat kaat dëgg dëgg dëgg pour nga dugg si dëkk bi dina metti mais tey alhamdulilahi rabil alamin yéen gis ngeen ba ngeen di ñëw daanaka si tëli ngeen dox ba ba ngeen di dugg ko si donc yokkute boobu gis nañ ko bu baax baax a baax macha allah jamono boobu jàkk mu ndaw moo fi nekk te alhamdulilah ñu ngi tabax jumaa ju rëy joo xamante ni kenn mënu ko wax place bi ngeen di gis teen bi nekk foofu moo doon place su jàkk ji fi nekkoon jamono ñu fii commencé di ñëw si wàllu mission boobu donc alhamdulilah gis nañ si yokkute bu mag a mag a mag muy si wàllu daayira di si wàllu daara macha allah ndax ba muy ñëw tamit fekkoon na fi ay daara yi fi nekkoon yëpp macha ay ñax la woon mais alhamdulilah rabil alamin depuis mu duggee léegi macha allah daara yëpp tabax nañ leen te daara yëpp toiture nañ leen wuuteeg ñax yi mu daan doon actuellement ni may wax ak yow fi ñu toll nii daanaka ñu ngi si 114 daara yi nga xamante ni Cheikh eh, Ahmed Tidiane Tambadou réalisé na nda si Balantacounda 114 yi nag boo ko déggee mooy yi pare yi daanaka Covid bi moo ñu arrêté woon mais xam naa ni si des yi bu ñu ko àggale woon boo maytul macha allah daal eh, Ahmed Tidiane Tambadou bu baax ndax xëy na ñun jamono bi ñuy commencé di yëngatu si daayira boobu xamaguñu Cheikh Ahmed Tidiane Tambadou jafe woon na trop pour nga pour dafa nga jafe woon trop pour tarixa cheikh bi dugg fi ni foo fa war a duggee donte amoon na fi sax ay quelques taalibe mais xëy na nëbbatu woon nañu mais macha allah yàlla def na ba ñu yàlla booleeg ku mel na Cheikh Ahmed Tidiane Tambédou yàlla gën na fi yaatal tarixa bi dëkk bi ñuy wax nii du ko si fii la ma njëkk yebal ñu ko fee defal xadratul juma chaque ajuma jamono boobu macha allah ñu ñëw di raam ñoom ndànk-ndànk ba tey alhamdulilahi rabil alamin bon yeneen dëkk yi tamit bare woon na fi ay ñu jiitu woon tarixa yi mooy ñi xamante ni tey contre nañ suñu mag yi nekkoon di yàq lu bare bare bare bare si wàllu diine ji ndax mag ñi ku leen contre rek yaa ngi yàq diine ji ndax mag ñi tegu ñu fudul si yoonu bi nga xamante ni tey ku si jaar rek àgg nga si yonent bi sallallahu yooyu rek la ñu mag yi di wutal te bare woon na ñoo xamante ni tey ñi ngi fi taxawal seen tànk uniquement ngir yàq loolu yàlla suturaal nañu nag ba ak ak Cheikh Ahmed Tidiane Tambédou yàlla nañu tey ba tey ñu ñooñu ñu bare ñu si nekkoon tey alhamdulilahi rabil alamin jël nañu wérdu tarixa cheikh ñi ngi koy pratiquer tey siir fi jàngal rek nga kontaan loolu moo tax dugg ñu balantukundaa ba génne te jànguñu tey siir ndax sha allah xale bu tuti boo rombe tay mu jàngal tay sir jàngal la jangala fa najina te xena ay temps ay jamono ci gannaaw ay at yu néew si gannaaw ah ko doon wax waxu tarixa cheikh sax dafa nan la moy lan donc tay alhamdullilah rabbil alamin ak cheikh Ahmed Tidiane Tambédou xamnañ kuy Seydi haji malik si xamnañ luy tarixa cheikh ana Ahmed Tidiane si serif radiyallahu taala anhu